jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal tomb bi ñuy fàttalante tey ci julli la aju julli mel ni mi nga xam ne moom lañu xam miin ko waaye nag fan yii nga xam ne ci lañu nekk dafa am sag boo xam ne bu doon jëmm ju mën a dox wóor nañu ne dana sigréwu bu ñëpp yëg ne sigréwu na julli moomu nga xam ne waroom xam-xam yépp juboo nañ ci ne ab taxawaayam ci diine mi ngi mel ne bopp ci jëmm juy dund da ngay dégg sax kuy wax ak moroomam téléphone naa ko maa ngi lay ziyaare di la jox sa wàccuwaay waaye wàccuwaayab julli ci diine mi ngi mel ne bopp ci aw yaram yaram lu mën a doon nag bu fekkee ma nga ak bopp mu sax ay nopp yor ay gët ku ne xam na ni bis ko ca gaañee sax jëmm ci da cay àndaale loof julli moomu nga xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di soga jot ndigalul woo nit ñi moom la ko jëkk a jox ci ak jaamu yàlla ak nu ñu koy defe waaye mooy li yonent bi mujj a wax ci aw làmmiñam it ba muy génn àdduna kon lu ko ñor la asalaata asalaata waaye buñ jógee àdduna ñun ñëpp ba demit moom la yàlla jëkk seet su baaxee lépp baax su melee neneen nag la ca des lépp dañu koy seet benn par benn loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam l'islam nag soññee ca soññee boo xam ne dafa mel ne dafa am lum gàll ci soññee ga ne julli kët mooy diine diine nag bokk yi fu nit dugg mu ànd fa ak moom dugg diine fu nit dugg daal day ànd ak moom dugg fa amul fu mu koy xaar moo xam mu nekk ci këram ci dëkk bi mu dëkk wala mu nekk ci tukki amul fenn fu mu koy wàcc li fekk mi ngi doon nit di dox di dem daal te di ko man du ko wàcc bu dee ki demut dikkutit te dem ba ne laaj mënatul dara tëdd ci lal du teye bu waxtu julli jotee lislaam ne ko julli jot na mu defee ko nam ko mane moom la alxuraan di wax ne bu ngeen demee ba dugg tukki dugg ca la ngeen di dugg suñ leen mayut ngeen julli ca daaba ja may leen ñuy julli ñu ne dañoo yàkkamte ñëpp bañ wàcc leen na ko jar su dee fu ngeen mënta wàcc ngeen julli jëm fa daaba ja jëm rek waaye doone naa xaar ba wàcc déedéet duñ la ko may dem na bay leeral sax ci alquran daanaka mooy genn julli gum leeral ci alquran ñu koy jullee muy buñ demee ba cëgg desetu ci guy ñu ngi ci ab xare ñëpp yori gànnaay du taxam wàcc leen de xanaa kuñ dóor bal mu ne këpp faatu waaye wax na nañuy jullee am na nu ñuy jullee bu ab xare amee ba ñëpp yori xatal dañuy tànn imaam ci biir ñuy xarekat yi mu def kuréel bi ñaari xaaj wa ida kunta fihim fa aqamta lahum alsalata faltaqum taifatun minhum maaka walyaxudu aslixatahum fa ida sajadu falyakunu min waraikum waltati taifatun uxra lam yusallu falyusallu maaka walyaxudu ba aaya ba ak ñaari xaaj xaaj bii dañuy ñëw taxaw su boobaa ñaari rakk la ñuy jullee ndax fitna jiñ nekk ñaari rakk su imaam jiitee mbooloo mii benn rakkaa danaan tekk moom taxaw ñii ku ne àggaleel moroomam boppam ku ne àggale boppam beneen rakkaam dem ña taxawoon yor gànnaay yi ñëw taxaw fii ñu taxawoon ñoom imam àggale ñoom benn rakkaam am ñaar ñoom ñooy ku ne àggale seen benn ñu dellu ci xare ba xanaa mënoon nañ ne dañoo ne ci fitna taluñu ko waaye du tax mu jéggal la am njàpp du tax mu jéggal la am tiim moom dong la alxuraan détaillé ci nu ñuy jullee kon julli bokk yi lu rëy la léegi nag ñuy dox ba àgg ci jamono joo xam ne alxuraan a nga ci waaye dañ ko bëgg a fàtte wala xóotaluñ ca seenu gëstu fi ma dogalekat bi dogalee woon léegi mooy illa man taaba wa amana wa amila saalihan fa ulaika yadxuluna aljannata wala yuzlamuna shay'a waaye dogalekat bi léeg-léeg day dogale nga wax jaral ko lu nekk yàlla nunu yàlla musal sëñ bi nga xam ne moom lañ tasaal xam ne xiila xaala dana bari ay bu jamono yàggee mu wax digganteem ak ñi ànd ak moom bu julli jotee ni ñuy def wa xaafidan ala salaati annaha yow mii wax ne man nga àndal déglul na nga sàmmoonte sa digganteeg julli ba jox ko xaqam jam war a am ci yow yépp ndax kat jaamu yàlla gu nit war a gu nit di wër bëgg caa dem di ca jaamu yàlla jullee ko gën ci moom kon waxuma la nga di ko def lee waaye na nga ko saxal bul bàyyi waxtu julli mukk muy dem te julli woo bokk yi nag jamonoy doxati ba àgg ci alal bari lu nekk bari waaye am ñoo xam ne seen alal buñ ko wutee ba mu bari doyewuñ ko dara lu dul xeexe ko ak sunu borom subhanahu wa taala te kat yor alal di ko xeexe ak yàlla ak tooñ mënu koo weesu tooñ gi benn bokk na ca def nga li ñuy wax violation de domicile ku bëgg a xeex ak yàlla na génn suufam si ak asamaanam si wut fu mu taxaw door a jàkkaar la ko li tax ñu di ci fàttalante song yi song diine dafa bari lool moom la waykat ba doon wax ba ñu ko singalee ba singale ko fu mu génn ñu ne ma nga ne di ko joxañ te xamut lu mu def walaw kaana sahman waxidan lattaqaytuhu walakinahu sahmun wa thaanin wa thaalithu su doon genn fitt képp lañ ma sànni ma moytu ko jëmuma sant yàlla lay def waaye foo xool gis bali fitt yee jóge fa jëm si si yow war ngaa jóg nag mbokk yi benn liggéeyukaay ngi nii ci Ndakaaru di jaay ay garab daa dàq ñaar ñoo xam ne seeni tur bu ñu ko waxee ba wutul ab dënd dana rëcc waaye gis nga bokk yi ñaar ñooñu dañoo delloo si lu yàgg loo xam ne mas naa am ci jamono ëpp na téeméeri at ñi ngi xewoon 1895 ñaar ñooñu fa ñuy liggéeyee ci pharmacie boobu pharmacie la moo ne bi gëstu amee xam nañ ne ñoom ay xamkati garab lañ ndax ay docteur lañ en médecine waaye nag kooko yàlla da ko jay yàkkal ko yàkk bu doon mu dem ba bew mbewte dong la mën a tudd ndax suuf soo xam dañ la faa dalal yàlla la fa ko jëkk dalal moom ko nga dem ba ne mënumaa liggéey fii naa dem ci seneen suufu yàlla ñooña dalal la amul fu kenn moomul amul fenn foo xam ne kenn moomu ko ñu dalal ko muy dem ba ne bu fa kenn jaamoot yàlla loolu moom moog yàlla la waaye li ñu tax di wax mooy ña nga xam ne ñoom teraanga daa nekk ci seen kanam yàlla nekk ci seen kanam ñu bàyyee fa teraanga ja dem ca yàlla docteur Jum ak docteur Ja Daam daam am na lu muy fàttali ñun docteur Jum Ahmadou Bamba la tudd ñu ne ko boo ñu fi bëggee teree julli ñu bàyyi la sa liggéey sa dem mu ne kon dem leer ñu bàyyi fa liggéey ba dund nañ ayab alxuraan bi nga xam ne bi yàlla di santaane julli ak ajju moom la jëfandikoo tudd na ca jaay ak jënd kon alxuraan jamono jëpp lay àtte yaa ayuha alladina amanu ida nuudiya lissalaati min yowmi aljumuati fasaw ila dikrillahi wa daru lbaya baya saa bu ngeen déedéetee ak noddu yemut ci ajjuma kese ni ngeen fi ne ñukk la ngeen doon yëngu rawatina jaay ak jënd nag te lu ngeen jaayoon ci diggante boobu yi ndax naan ma àggale na ngeen ko firi xàcc ko ndig bi baaxul bu ngeen ko lekkee du baax zalikum xayrun lakum liggéey baax na lool waaye lee ko gën nag in kuntum taalamuun waxoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nit ñi moom bu teraa nga teewee yàlla teew léeg-léeg ñu ne fa ñukk yàlla ku ne fa ñukk yàlla fu mu jëm day wër ba sonn waaye du ko am wa ida ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilayha wa tarakuka qaa'ima qul ma inda allahi xayru min allahwi wa min atijara foofu tudd na fi jaay ak jënd moo ne fitt yi may wax de du benn boobu rek am na benn jàngukaay bu ñuy wax institut boo xam ne tubaab yee ko moom muy jàngale business mi ngi Sénégal de moom it nee na bu fa kenn julleeti business nag bu ca diine amut wàll business lay xaar la cay topp topp waaye ñooñu dañoo jàng maa inda allahi xayru min allahi wa min attijaara wallahu xayru raziqin seen wërsëg du fa joxe jeex ndax yàlla moo ne woon maa inda allah maa indakum yanfadu wa maa inda allahi baqin lu ngeen yor lu mu bari bari day mujj jeex la fa yàlla rek moo du jeex te ñi nga xam ne dañu faa bàyyi liy jeex jëm ca yàlla yàlla dafa mel ni ku giñ laata muy wax seen mbir ëllëg wala yajziyanna alladina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu yaamalu dana tegaat ci seen loxo lu gën fuuf fañ nekkoon léegi nag ñi nga xam ne ñoom dañoo am alal beew bëgg a jàkkaarloog suñu borom ñoom it yàlla waxoon nañu seen biir ba loolu du ñu bett kañ lay doon rek la waaye du ñu bett inna alladina kafaru yunfiquuna amwaalahum li yasuddu an sabilillah fa sa yunfiquunaha thumma takunu alayhim xasratan thumma yughlabun dañuy dajale alal ndekete yoo buñ demee ba jekk dañuy déclarer yàlla guerre waaye nee na duñ ci mës a am ndam mukk des na leen yeew jéng leen jatan leen mbaq leen ñu dugg sawar soo gisee rëg-rëg yi am nag yàlla nee na li yamiza allahu alxabisa min at-tayyib li tax ñooñu di jaar ci seeni yoxoo la koy waral mooy yàlla daa bëgg a ràññale nii takk der yi def bu guddee loo mën a wax ñu dugal la ci oto bi suñ demee tànn ña ñuy seet loolu rek li yamiza li yamiza allahu alxabisa min at-tayyib wa yaj'al alxabisa ba'dahu ala ba'din fa yarkumahu jami'an fa yaj'alahu fi jahannama ulaika humul xaasirun ndekete alal ju bari jéeg siiw géeg lépp yàlla daf cay dugal ay jullit nattu seen pas-pas tànn ña ca gën teg ne ña ca des bokk ci ñi yóbbu ca ëllëg fu kenn bëggut a dem ñooñu nag yàlla nee na suñ delloo suñ delloo gannaaw ne lañ defoon rëccu nañ ko dutuñ ndax kenn duñ tere ko fi julli man nañ leen a jéggal waaye suñ nangu wut a jéggul nañ nañ ko jëflante ak ñoom fu mu yam rek baax qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in yacudu faqad madat sunnatu alawalin wa qaatiluhum xatta la takuna fitna ndax loolu li muy jubale nit ñi ku fi julleeti ñu dàq la nga bañ ñu dàq la day mujj sa pas-pas tàmbalee yànq ndax suñ la bàyyee julli moom yi nga def tax taxul ñuy wax moom wa yakunu diinu kulluhu lillah fa in intahu fa inna allaha bima yacmaluuna basir kon ñooña ñu mat a tafagal lañ ñu mat a gàttandu lañ ñu mat a teertu lañ ñu mat a jàppale lañ nañ leen leen jàppalee nag mooy ñi nga xam ne yàlla jox na leen alal yakkal leen te ñu ay jullit yoo xam ne seen xol yaa ngay dund nañ fexe ba ñaar ñooñu moom kenn ku nekk am sa pharmacie bu bopp boo xam ne yaa koy moom kuy liggéeyal yàlla laa war nag te yàlla ñor ko mënees naa liggéeyal yàlla ci ñoom ndax dañoo bàyyi lépp te yàlla rek tax ne leen yàlla fay te demaguñu alaxira ne leen yàlla fay te buñ te buñ demaguñu alaxira loolu sasu jullit yëpp la nañ fexe ba ku ne am pharmacie bu ba ko gënal ñu wéy moom wóor na ma ne buñ ko amee danañ fa tabax jàkk waxuma la di tare ko fa jël waaye danañ fa tabax jàkk ñoom kon boog ñiy def te yàlla tax te yaakaar ne wóor leen ne bu ëllëg yàlla dana leen fay ñaar ñaa ngi noonu ay ca waaye bala ñu see ak ñi am ay pharmacie ñoom ne kooka tey ay jullit nañ fexe ba ñooñee tàmbalee liggéey moom fa saasa la ca dolliku nag mooy foofee ñu doon liggéeyee moom nañ xam ne ku fa jëmati di fa yóbbu sa alal it yaa ngi cotisé ci koy xeex ak suñu borom subhanahu wa taala soo ko yëgee ak soo ko yëgut te it ay garabam it mat naa tey ay garabam it mat naa tey loolu moom ne ko ñëpp xam li feeg wañ ñu ko wut nañ ko ko fa bàyyil am na ku ko defoon fii fi Mbàkke boo bi seen laa tere yi doon tere 1980 mu ne moom fi mu nekk ak commune la tudd ab commune xanaa duñu jaa fa dëkk lànk na lu suñu daal waxoon nañ ko fa bàyyil mburu ma may jaay moom nu mu def wàññi ko ñëwaat si mu ne ko tuub naa loolu na dellu si waat kooka jullit yépp la tooñ la ko tàmbalee fa gën a sori ak fa gën a sori ci penku ba ci sowu ak ba ci saalum ak gànnaar xam naa ne bu doon réew yi nga xam ne jullit yaa ngay dund seenub jullit moom waxatuñ ko dana tëj bisub keroog ndax kenn du fa dugg di jënd garab ndax na leen wóor na jullit bu fa dugg jënd garab moom yaa ngi cotisé ci kuy xeex ak suñu borom subhanahu wa taala su ko defee ñoo ngi nag fañ dëkk dëkk bañ dëkk itam yelloo na bu ñuy dellu jëm ci seen dëkk ba ñu jàppale ñu jóge ci jihaad duñ duñ gañe teertu leen teertu bu xumb ñañ war a gis leen ñëpp ñu gis leen te ku leen gis na leen jox dara ana liñ fuur li mooy lan kañ ne woon doo julli ci ndox mi doo julli ci gaal gi ndax boo ko defee ñoo ko moom mu cëppali ci ndox mi lu ko ke doon fekk yoonam nekku ca woon waaye faat waxtu suñu borom mi jaral na ko bakkanam ñoom it faat waxtu suñu borom jaral na leen ñàkk seen alal ak seen ub liggéey jar na ko lu fi waay bari bari alal moo xam lu mën a liggéeyee ana fu muy mujj dara du ko topp alal du ko topp ay morso yu néew koy topp ñu sóol ko sax yi lekk ko mu jeex kon boog ñooñu di docteur Ahmadou Bamba Dioum ak docteur Dame Dia ñoom ñaa ñu seen tur yooyu wax ju bare nga ci ñu mat a taxaw lañ koo xam ne yàlla dong ngay liggéeyal te yàlla tax ñooñu moom na leen ñëpp ñee na leen pharmacien yëpp ñee ku ku leen jox sa dërëm moom mel na ni da nga dugg ci ba Seydina Ousmane di financé xare ba dara wutalewu leen moom ñeneen ñi nga xam ne agguñ foofu it nañ xaar seen wàll xam ne fu waay di liggéeyee mën na la faa dal na la ko jaral te fu mu dalal nit it na leen fa jullit yi bàyyi na yàkk bu faro bañ a amata ci ñoom soxla jàngkaay boobu ñuy jàngale nit ñi nag business loolu tudd jàngale ñàngal la tudd ndax bu fi kenn julli moom te nga ne ci réew moo xam ne ñëpp ay jullit lañ moom it ku ca demee gutoon na bàyyi te xam ne bu fa yàggee tuuti ndax seenom njàng nii la mel naa la mel it fañ jëm ak kër dong fa la ñuy jëm ak moom fexe ba seen pas-pas wàññiku di jeex di jeex ba jeex tàkk yàlla na yàlla di dimbale ci pexe seytaane te musalal nu boppam sunu boroom mi ngi wax ne ci fonk gum fonk julli ba ne am na si ñoom nag ñooñ nag jamono dana dox ba yàgg ñu naan liggéey bee ko laaj nañ dem ba àgg dugg ci oto nañ dem ba àgg tudd na oto léegi ñaan dañoo yàkkamti waaye bokk yi ku ci duggati ci oto bu waxtu jotee su na nguuta taxaw nga julli ne ko wàcce ma fi sama paas yam fi lu ko ca fekk baax la waaye jàngukaay itam lu mu baax baax ak lu ñu ko fonk fonk ginnaaw nee nañ bu fa kenn julli bu jullit yóbbu doomam moom su fa yóbbu doomam nag nangul na nangul na waaj li muy wax parce que sam tàmbali naa jeex te waajoo gi la may joxe du mujj fenn nooy amee teraanga dong la teraanga joo xam ne anut ak pas-pasub jaamu yàlla nag doonut teraanga alkande la bëgg a tudd ñoom xam-xam bañ yor mooy bi sëñ bi doon wax naan fa kasratul ilmi bi gayri adabi jalibatun ila al ada wa taab xam-xam bu ne gàññ bu anut ak nite kooka day sonn sonal nit ñi waaye alal ju ne gàññ it te anut ak nite day sonn sonal nit ñi te rawatina bu ko defee gànnaay bu bëggee xeex ak suñu borom subhanahu wa taala yàlla na yàlla dafa dégg ak topp te moom seytaan te dëgëral suñuy pas-pas ma delluwaat ci ñaari pharmacie yooyu ñu dàq ngir dañ fa doon julli na leen ñëpp jàppale fenn fu ne nañ fa def kees lu waay am def ko ca ñi nga xam ne mën nañoo xëy xëy tabax lu ne léng nañ arrêté sànc yëpp fexe ba ñooña am seeni pharmacie yi bopp ba noppi yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin